jege woon na sarfu lool waaye bii moom naxu la muy luñ setti loolu mooy luñ setti mooy isim bi nga xam ne suñ ko génnewutoon ak illaa wala benn ci mbokk illaa yi mu dugg ci biir wax ja nga génne ko xaraf wa nga koy génne nag mooy illaa wala mbokki illaa yi comme xeyru ak siwaa ak yu demee noonu yooyu dinañ ko jàng ci dars yi ñëw incha allah rabbi lan ko génnee nag moo tudd mustasna minhu kon mustasna mooy isim bi nga génnee ci wax ji mustasna minhu mooy mbooloo ma nga ko génne jumtukaay bi nga ko defee mooy illa wala benn ci mbokkam mi wane jaa dikk na alqawmu nit ñi dafay mel ne dafa mel ni ñëpp dikk nga bëgg cee génne Muhammad nga ne illa Muhammadan su mooy Muhammad moom dikkul su ko defee Muhammad mooy mustasnaag moom nga génne alqawmu mooy mustasna minhu ci ñoom nga génnee Muhammad kooku illa jumtukaay bi nga génnee Muhammad nag mooy illa kon Muhammad moom safaan rek dikkut mustasna safaan ak mustasna minhu la e, bunt bi muy njëkk jàngal nag la mu ciy jàngale rek mooy lan mooy mustasna la mooy mustasna minhu loolu la ci jàngale lu ci topp nag mu joxe atteeb luñ settee illa mustasna bi illa dañ ko war na nasabam dañ ko war a rafan loolu moom lay jàngale si dars bi ci ñëw muy ñaari dars yoo xam ne benn dars المستثنى بإلا الأمثلة لمن مثالي حضرت تيونا الأصدقاء قريجي إلا عليا لم يعلي حضرت تيونا الأصدقاء قريجي دمية كان قرزي يبنيو من ردد علي كان يوت إلا عليا كان علي مي مستثنى مي ستي الأصدقاء منو مي مستثنى منو مي لنشتي علي mooy fañ ko génne jumtukaay bi nga jëfandikoo pour seet ci mooy illa gis nga aliyu safaanab astiqaaw la astiqaaw yi dañoo teew waaye aliyu moom teewut fii nag gis nga aliyu daf ko nasab lu tax ñu war ko nasab nag moom lañ war a jàng ci léegi xalaltu fecc naa masail xisaabi masala yi kalkin إلا مسألة لما بين مسألة بوني فتنا مانام تونتنا لنشنا مو رجلا ناقرا فتنا مسألة حساب يب مي مسألة كالكن يب إن مش جوهن يب دفنا كو ده يمني دفنا يب أنا ديرت أمنا بين مسألة بمدفل إلا مسألة مسألة جوجو مستثنى مستثنى منو جي مسائل الحسابي jumtukaay ba nga ko defee mooy illa su ko defee rek jàpp baatu mustasna te xam ko bu baax jàpp baatu mustasna minu xam ko bu baax am na solo ci bunt bi ndax danay waral atte di soppeeku maanaam maska yi fii daal liñ ci soxla mooy jàppal lan mooy mustasna lan mooy mustasna minu ak ban xaraf lañ koy defee illa wala mbokk illaay xaraatu jàng na alkitaaba téere ba illa safxatayni lu mooy ñaari paas xalaatu jàng naa la kitaabu téere mu mel ni jàng lépp nga ne am na ñaari paas yoo xam ne jàng mukk safatay ni dañ koo nasab man la nasab mooy yaa moo di mustasna mustasna minu mooy kitaab jumtukaay bi nga ko defee mooy illa in qadaa jeex na asayfu noor bi illa yow may ni lu ñaari bis boo ne noor bi jeex na dafa mel ni lépp jeex na mu ne ñaari bis yow may ni mooy mustasna sayfu mooy mustasna minhu jumtukaay bi nga ko defee moo di illa kon yaakaar naa loolu yomb naa jàpp euh, albaxsu bi moo di bi te amma silamtala al asma tur allati yi nga xam ne baada illa ñu ngi ci gannaaw illa fi amsilatil mutaqaddima ci misaal yi jiitu mu ne xoolal ism yi ñëw gannaaw illa ci misaal yi ñu jàng léegi tajidu da nga fekk kulle ñoom yu xaalifu muy wuteeg al isma ism alladi bi nga xam ne xablaha njëkk na ko fi hukmi ci àtteeb asdiqaaw dañoo teew amma ali dafa ñàkk teew masaayil xisaab yi lañ ko réglé yëpp waaye benn masala bi moom réglé wuñ ko téere bi dañoo jàng lépp waaye ñaari paas yi jànguñ ko moom noor bi lépp jeex na waaye ñaari fan yi a jeexagut kon li ñëw gannaaw illaa dafa wuteeg li ñëw njëkk illaa ci atte atte mooy lañ ko askane ci teew ak ñàkk teew ak fa min misaal awali ci misaal bu njëkk bi xakam naa atte nañ al asdiqaa ci xarit yi bil xuduuri ci teew amma ali waaye ali moom alis mu mooy tu alasi bi nga xam bu njëkk bi xarit yëpp dañoo teew waaye ali moom teewut wala mu saxut lahu ñeel moom ali al atte alladi bi nga ne sabata sax na li baqiyati asdiqaayi ñeel xarit yi des xarit yi des la nga leen atteelal atteelu ko àlli kon foofu moom àlli mustasna luñ setteera minhum ci ñoom dégg nga wa mu xaalifun aji wutee la fil xukmi ci atte lahum ñeel leen moom ñoom bokkuñ atte dañ ko settee ci gaaya ومن أجل ذلك لوطا يسمى دين كتير مستثنى ومستثنى لين كسيت فين كسيت هني من كتير مستثنى منه فور علي مستثنى لين كتير كما يسمى كم لين كتير الاسم تور الذي بين قمنا قبل إلا أنجكنا إلا وهو ما يلفظ الأصدقاء ما يبات قريري كي مثال من جكوا لين كتير مستثنى منه ما يعرف مني كتير كان جنة wa hakaza nii yuqaal lañu wax fi baqiyati amsilati ci misaal yi des mustasna kon mooy isim bi nga xam ne dañ koo génne ci wax ja jëf ci xaraf bu ñuy tuddee wala mbokki illaa yi dinañ ñëw ci mbokki illaa yi nga xam ne bu woon génne googu mu dugg ci biir wax ja loolu mooy mustasna ña ngi ko génne nag ñoom la ñuy tuddee mustasna minhu baat ba nga leen génne moo tudd mustasna minhu foo ko fekk nag arab loolu lay wax waaye xam nga ne léeg-léegi mustasna minhum lay doon parce que bu dee ñu ngi ko génnee mbooloo la mustasna minhum lay doon mais ci nax moom mustasna minhum rek la ñuy wax alxawaay li mooy tënk bi yu sama danañ tuddee al ismu tur allazi bi nga xam ne yaqaw dana tàbbi baada illaa gannaaw illa mustasna isim bi ñëw gannaaw illaa moo tudd mustasna wa yu sama danañ tuddee al ismu isim allazi bi nga xam ne yijiw dana dikk qabla a njëkk illaa ويستملوا مي لامبو في المعنى تي معنى دينغا على ما بعدها تي نيك تي غناو الا مستثنى منه مومي تودي مستثنى منه اسم بيغا خامني مو نيو غناو الا مومي مستثنى اسم بيغا خامني مو نيو نيك الا نك ووخي نك مي لامبو معنى لا نيو غناو الا خينا سفانا معنى لا نيو غناو الا لا يدون ولا بوك bulu wona illaage dafa yorema moog li ñëw gannaaw illaage illaageem ñoo bokk ak ak li ñëw njëkk illaa ñoo bokk maanaa waaye xaqiqatan isim bi ñëw njëkk illaa moom safaan ak maanaa li ñëw gannaaw illaa la yore bokk nañ maanaa waaye maanaa yi dafa wuute kii dafa teew kii ñàkk teew waaw kon wees tamit dana làmboo fi maanaa ci maanaa alama baada safaan ak li ñëw gannaaw illaa loolu lañ tuddee mustasna minhu al mustasna bi illa luñ settee illa ismun tur la yuzkaru danañ ko tudd baadaha gannaaw illa mu xaalifan mu aji wuteeg fir xukmi ci atte lima xablaha ñeel la ko jiitu gis kon li ñëw gannaaw illa dafay wuteeg li ñëw njëkk illa ci atte xëy na way fi maanaa la ma baadaha it dafay bëgg wax ne ñoom ñaar ñoo bokk rek tey al asdiqaaw xarit la aliin tamit xarit la foofu lañ bokkee maana amma ci wàllu atte nag moom dañuy wutee xarit yi ñoo ali teewut masaay la xisaab ay masala lañ masala ten tamit masala la masala xisaab la waaye nag bokkuñ ñi bii dañ ko réglé bii réglé wuñ ko téere bi téere la ñaari paas ci téere bi la bokk yooyu bokkuñ bii dañ ko jàng ñaari paas yi jànguñ ko ñaari fan yi ci noor bi la bokk kon su ko defee wala sama dana fi maanaa ci maanaa la ma baala ci la ci gannaaw mooy ñoom ñaar ñoo bokk luñ doon mustasna ak mustasna mi ñooy bokk luñ doon waaw léeg-léeg nañu bañ a bokk luñ doon loolu mooy al-istisna al-munqati bu dog lañ koy tuddee waaw léeg ñu bañ a bokk luñ doon ñu li jaar xawmu illaa ximaaran nit ñi dikk nañ ba mu des mbaam mbaam bokk ci nit ñi am. waye li ëpp daal mustasna ak mustasna minu ñoy bokku luñ doon mais dañuy wuti atte nag hukmul mustasna bi illa atte luñ sété illa ala baat bo xamne dañ ko génné illa loolu mooy attem ci naaxu jàppal su fekkee wax ji dafay saxal dàqut te tudd nga mustasna minu gi la nga sété illa da fay war nga nasab ko moo yi ci gëna yëpp yaa gis dañ koy nasab loolu nag mooy bu wax ji di saxal daqku ga tudd mustasna minu bi ah parce que mustasna bi dañ koy nasab xamone nañ la mustasna minu wala la mustasna su fekke nak wax ji da fay dàq ga tudd mustasna minu bi mustasna bi man nga ko nasab man nga ko def badal maanaam mu topp mustasna minu bi ci atte ci maska ci rafan wala ci jar su fekkee tuddoo mustasna minu bi la nga settee illaa dafay mel ni bu fa illaa nekkul bu dee bu fa illaa nekkul woon fa'il la nga rafan bu dee bu fa illaa nekkul dafay nasab nga nasab ba ma nga nasab ñetti at yi daam alam seel li may misaale asmarat naa las jaaru garab yi wax ji dàqut dafay saxal al asjaaru mooy garab yi mooy mustasna minhu kon boo andee illaa rek la ñëw gën a illaa nasab rek la mën a doon illaa ngay wax asma rek meññ na al asjaaru garab yi illaa shajaratan ba mu des benn garab lu tax nga nasab shajaratan ndax dang koo settee illaa sette woo ko dul illaa illaa nga ko sette te mustasna minhu bi tudd nga wax ji tamit dafay saxal dàqut dafa wane meññee si garab yi meññ nañ kon li ñëw gannaaw illaa nasab rek nasabar la mën a doon asmaran meññ na alasjaaru garab yi illa shajaratan lu muy benn garab tudd nga mustasna minhu bi te wax ji dafay saxal nga settee illa kon mustasna bi nasab rek la mën a doon taara naaw na alxamaamu pitax bi illa waxidatan lu muy benn pitax foofu tudd nga mustasna minhu bi mooy xamaam wax ji dafay saxal naaw na nga wax dàqoo لو ستة إلا كن مصدنا بدفعي نسب فردونا الجنود سلداري إلا القائد لما أجي أمد جا تدن أجي أمد مو يكي جيت خارب مومي سي سلداري لا بوك رك يعني مستثنى المستثنى منو نيان يو بوك دون تي القائد مصدنا لا تدن المصدنا منو بي وفي دفعي سخل إلا لنكو داقي لنكو كو ستة كن دفعي نسب كن سايو تدن المصدنا منو بي wax ji سخل nga settee ko illa nasab rek ngay mën a def amma bu fekkee tuddee nga tuddee nga mustasna minhu bi waaye wax ji dafay dàq boo settee illa man nga ko nasab man nga de man nga ko def badal mustasna bi lam tatafattax ubbeekuur al azharu flori man ngaa wax banaf saja illal banaf saja lu mooy banaf saj warangane awil banafsaju waranga wax illal banafsaju lu may fulul banafsaj boo defee illa adaatu istisna ngay wax xarfu istisna moom ne la sukun al banafsaja mustasnan mansubun bil istisnaayi dañ koo nasab ndax dañ koo setti boo rafaaye nag ne yëpp noonu koy inrabe rek boo rafaaye ne al banafsaju badalul min al azhari وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الدم أظهر إلى آخره بنفس جودة فإنكو بدلت أظهر تأظهر دفع رفع كل مؤمن دفع رفع لور إنما نوع إلا البنفسجة ولا بنفسجو فسكا واحد دفع داق سخل كن واحد بوري داق نتلو مستثنى منه بي فبرسته إلا مستثنى بي منا نسب منا توب مستثنى منه با كما سكبا نك بدرم ما سلمت نيو مال القادم من كي وين يونيا من غاوا الا الاول سبوبا منصوب باستثناء غا يعني واخ دنجو سيتي سي استثناء ولا الا الاول باسكو دا فجر بوكو بدل يا قادم دا فجر وتا ما سلمت نيو مال القادم من كي وين يونيا الا الاول ولا الا الاول فتنا بن با لم ينجو مجد المستحمون ويسانغونيا illaa ahmada ngay wax wala aw ahmadu wala nga ne illaa ahmadu mustaximuna dafa rafaa maanaam nga rafaa mooy waaw ga kon ahmada mën nga ko nasab mansubu bi istisna wala nga rafaa ko mu badal ci mustaximuna maanaam mu remplace mustaximuna taxaw place am eh, mooy lam yem ahmadu rek loolu la hmm. kon saa yoo tuddee mustasna minhu ba wax ja di saxal mustasna ba danga koy nasab bu dee la nag laa wax bu dee yeneen mbokk illaa dina ñëw saa yoo mustasna minhu ba waaye wax ji dafay dàq nga settee illaa mustasna ba mën naa nasab mën naa topp lu ñëw njëkk illaa mën naa mën naa topp mustasna minhu ba kon mën na ko topp rafan wala mu nasab wala mu topp ko ci jar wala mu nasab mais bu fekkee mustasna ba dafa nasab mustasna minhu ba dafa nasab moom su boobaa mustasna mun lu may nasab ndax boko defé bëral da fay nasab boko ko nasabee ci istisna fay nasab niki ma ra ay raaytu gisuma al qawma ninya wal arijaala góor ña man ngaa wax illa muhammadan rek nga mën wax parce que boo ne nga ko def badal da fa nasab kon muhammadan day nasab boo ne nga ko nasab ci istisna bi nasab la mën do mota andi wu ci lolu misal ndax fofu nasab rek la mën do dina wax ci da fay dakk te mën a doon nag ñaari anam ci wàllu i'rab mën a nekk badal mën a nekk mansuubun bi istisna kon su ko defee gis nga ñaari anam ak yi ci wàllu istisna jàpp ko bu baax wax ji bu mustasna bi nga settee ko illa tudd nga mustasna minhu bi nasab rek nga mën def wax ji bu dee dafa saxal dafay dafay dafay dàq bu dee wax ji dafay dàq tudd nga mustasna minhu ba nga settee illa mustasna ba mën naa nasab mën naa topp naa mi ko ci masque bu rafaa bu ko neexee nga rafaa ko wala nga nasab ko bu jaree bu neexee nga raf nga jar ko wala nga nasab ko amma bu fekkee mustasna mi dafa nasab mustasna ba nasab la ma doon waaye mën naa nekk badal mën naa nekk tamit mansuubun bil istisna boo ci nasab nag boo ko inraab na mansuubun bil istisna dañ ko nasabee setti ñu ñëw ci misaal mu mujj mi mooy bu fekkee tuddoo mustasna minhu min su boobaa day mel ni woon rek na muy mel atte boobu nga koy jox bu fi illaa nekkoon bu doon faayil la nga rafaa ko bu dee ma xoolum biir la nga nasab am jeex laa yus di du joxe an nasihaata laay biir illa al muxlisuuna lu mooy ñu sellal ñi ñuy sellal rek ñooy laay biir maanaam ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy joxe ay laay biir mooy ñooy digal nit ñi lu baax di leen wax lu leen jëriñ xam nga mustasna ak mustasna minu bi ñooy bokk nek ba même mbir asmalat mel na las jaru garab illa sajaratan ñoom ñaar ñëpp garab lañ fi nak ana mustasna min bi gisoko la yusdidu joxe an nasihat la biir mune illa al muxlisuuna ah fofu tuddu mustasna min bi ndax giso bi giso njëkk illa lo xamne mo moom ñoo niro ñoo bok nasihat la biir koku dundi sax moom far muxlisuuna nak ay doomu aadama lay don dégg nga te ku ne xam na ne moxlisuuna yi ak nasiyaatu dégg nga <coughs> namuñ ci ne ñoom ñaar ñëpp dañuy euh, dañuy joxe bii faayal la bii maforom bi nasiyaat dañ koo joxe moxlisuuna ñoom ñooy joxe te même mustasna mustasna minu buñ bokkutoo nekk benn it ñooy bokk maanaam ñoom ñaan ñëpp att bi moom dañ ciy safaano comme jaa dikk naal xaw mu ñi illaa ximaaran dëgg la ximaar bokku ci xawma yi waaye ñoom ñaar ñëpp dikk gi am na am nañ rapport ak dikk gi ñoom ñaar ñëpp boo xoolee dañoo dikk kii da nga ko saxal dikk kii nga dàqal ko dikk mais fii moom nasihaatu moom dañ koo def muxlisuna ñoom ñoo def ñoom ñaar ñoo ñoo nekk mustasna ak mustasna minu mustahid kon fii tuddoo fa mustasna minu laa yas di du joxe an nasihaata laaya biir illa al muxlisuna lu mooy way sella di tuddoo mustasna minu bi bu dee tuddoo mustasna minhu gi rek daggal illaa gi nga xool ban maanaa nga yore day mel ni laaj di du joxe an nasihata laay biir al muxlisoona ñu sellal ñi muxlisoona foofu faayin lay doon di bi du baax ga waaye boo daggul illaa gi faayin lay doon comme que la doon rek danga koy rafa boo dugalee illaa rafa ni illaa nekku fa nga ne laaj di joxe an nasihata laay biir illa al muxlisoona lu muy woy sellal يسدي فعل مضارع نسيت المفعول به إلا أداة استثناء ملغات la buñ nee na مخلصون فاعل مفعول بالواو ndax fii moom mooy ñàkk joxe faayil la fii dégg maa saaxabtu àndumaag illal axyaar lu mooy tànnee fi axyaar ci lan lañ ko seetee tudduñ ko waxoo maa saaxabtu alqawma waxoo maa saaxabtu rijaala dam ne maa saabtu illa al axyaar gis nga tuggi faayil la li ñëw njëkk illa faayil la moom ma form bii la bokkuñ sax te mustasna mustasna minu kii danga koy saxalal attekee nga dàqal ko ko waaye yi demeewul noonu moom maa saabtu ànduma ak illa al axyaar lu mooy tànnee fi daggal illaa bi danaan maa saaxabtul axyaara axyaara ma foonum bii la kon moom ma foonum bii la danga koy na sax maa ngi naa fii la saaxabtu kooku fexlu faayil la illaa adaatu istisna la mulxaat axyaara ma foonum bii mansuum bil fata gis nga laata tasuudu du nekk sang achion bu popul yi maanaam xeet yi illaa bil axlaaqi lu mooy ci jikko yi boo dagoon illaa gi axlaaq dafay jar ndax xarfu jara ci dugg cosaan li mooy laata tasuudu chion bu bil axlaaq maanaam bi baax nag koron waaye boo dagoon illaa gi loolu ngay am kon illaa adatu istisna mulgaat la baa xarfu jar axlaaq ismu majruurun bil baa wala masdar al kasra luñ settee illaa ñetti anam yi la am wax ji dafay dàq tudd nga mustasna minhu bi la nga ko settee da koy nasab boo ko settee illa wax ji dafay saxal dàqut laa bëgg wax wax ji dafay saxal tudd nga mustasna minhu bi da nga koy nasab boo ko settee illa wax ji dafay dàq tudd nga mustasna minhu bi boo ko settee illa mën nga koo nasab mën naa nekk badal ci mustasna minu bu fekkee tuddoo mustasna su boobaa mustasna bi da nga koy jox atte bu fa illaa ba nekkuloon bu fa illaa ba nekkuloon bu dee faay lay doon si jumla ba nga rafaa ko bu dee mu foonoon bii nasab ko bu dee dafay jar nag nga jar ko danga koy jox atte bu fa illaa nekkuloon albaxtu li mooy gëstu bi te amal setantal ñetti misaal alula da nga fekk al mustasna minu bi mazkuran mu yuñ tudd fi kulli misaalin ci bépp misaal setantalal ñetti misaal yi da gis ne mustasna minu tudd nañ ko watajid dana fekk alkalaam wax ji fi kulli minaa ci benn bu nekk musbatan muy luñ muy luñ saxal ay xayra man fiin dàquñ ko ci ñetti misaal yu njëkk yi waza taamalta boo sanante al mustasna bi wajëttoo nga fekk ko man suban muy luñ nasab fi am si la di salaasati si ñetti misaal yi jamia mboolem seen loolu an naka bu nekkoon yow te tabaxante topp nga al mustasna lañ settee bi illaa ci illaa fi jëmee taraaki bi ci mboolem toggale yi allati yi nga xam ne zukira tudd nañ fiyaa ci moom al mustasna minhu mustasna minhu bi wa kaana mu nekk alkalaam wax ja fiyaa ci moom musbatan di luñ saxal maanaam dàqut ak foo ko mën a gis ci langue arabe boo ko toppoon la waje taw danga koy fekk man suban muy nasab daay man ba faw mansour xoole il am tari salaasati si ñetti misaali assaani yu ñaareeli tajul da nga fekk al mustasna minhu bi mazkura muy luñ tudd fi kulli misaalin ci bépp ñoom ayran ba tey كما كان كن نكي في الأمثلة الثلاثة نيت مثال الأولى ينجكي ولكن الكلام واي وعج هنا في من في دفاي دق منفي لن دق لا من لا يفري منفي خم نغا نفع لا جوغي مقدي كو اسم مفعول لا ني دف بام منفي منفوي لو جانغ نك بلا تعمل بو سرنت المستثنى بإلا في هذه الأمثلة سي مثال وجدت دنگ فيك آخر مجد يقوم يتابع على حاله سي نياري حال وتارة إليه يكون ذلك منصوبا ذي النسب وتارة إليه يكون ذلك تابعا داج توب للمستثنى منه يعني المستثنى منه في إعرابه في إعرابه في إليه رفع نسب إليه متوب مستثنى منه في إعراب ولم نك بدل ولو أنك بفكون يوتتبع تتوب المستثنى لن شتبه إلا إلا في كل تراكيب كمبولم توقر إلا خمني يشبه دون نروك ألم سرط المثال المذكور ينتد هنا فيه ولم بولم toggale yi nga xam ne ni mu jumla ba dafay dàq ñu tudd mustasna minhu ba boo ko toppoon ci langue arab la wajattoo da koy fekk daayaman ba faw imma benn mansuban muy lim nasab o imma benn taabian mu aju topp lil mustasna minhu ñeel mustasna minhu bi fi arab bi ci arab mu nekk badal rek wala ñu nasab boo toppoon langue arab loolu nga cee gis moo tax bunt bi moom daanaka boo ko jàngee ci téere bi du ñëwaat ci naxu lu mooy lii rek lii rek lañ lay jàngalal dañ ci yokk lu tuuti tuuti motax tax fa ko ñëkke jàngé takk ko fa boko tekke téré téere boo demaat rek répéter rek lay donat ko biru région bo délo delloo am téré salasa ci ñetti misal ala xëy yu mujj te jid da nga fekk al mustasna min bi mahzufan muy luñu xasab fi jamia ci mboolem seen faslu awwal ci sanu misal bu njëkk moy la yus diru joxe an nasihat la yabir ahadun kenn illa al mukhlis illa boba nak da nga rek illa al mukhlisina mais dogu ma rek illa al mukhlisuna waaw bi fii mën nga ko def muxlisuun sax mu nekk badal parce que dafay dàq waaw cosaan li mooy laa yasdi an nasiihata ahadun illa al muxlisuuna wala illa al muxlisiin nga dagg ahadun gi kon tuddoo mustasnaa minhu bi fa xusifa ñu xasaf min al kalaami ci wax ji lafza ahadun baatu ahad wa baqee des na al misaalu misaal bi baada haada al xasf gannaaw xasaf bi kama raayta comme ni nga gisee muy laa yasdi an nasiihata illa al muxlisuuna بدون احد كان لنا باسكو احد دا دق وحدي صيغه وخم بي عموم لا هم دا دق مبول نيت نين نين امول كان كوي جو خلايا بير كون دقنا نيب مو ген سي مخلصون كون مخلصون بار بن كو جيلي مفرد لا كان لا مي سي مانام مبولو لا لو من نانيك بان حسب المخلصون لا وحدي نك لا يسدي ان سياته الا المخلصون وكذلك نكم من يقال لن يوفي المثال آخر سنيار مثال مجي موي ما صاحبتو أحدا إلا الأخيار الورلون ندق أحدا لا تسود الشهوب تنغ لا تسود دونك سنغ الشهوب فوبولي فوقم مو فدو أحدا تنغ تسالي كي موي لا يسود دونك سنغ أحد كن من الشعوب تي بوبولي الا بالاخلاق فم نون نغا ما ديفه مي مونو جي لا تسود الشعوب مون دوجل فا احد لا يسود دو نيك سانغ كون غاي واخ احد كين من الشعوب الا بالاخلاق لول مو تشان سوغ ديفه بو خولي كون فوفو مستثنى من بي احد لا وار نكو دك وذا تعملت بو سرنتي المستثنى مستثنى بي الا لن شتي الا في هذه الامثله تجي مثال الثلاثه نيت وجدتو دنجو فيك موربه موي لين اعراب ala xasabi mawdihi ci kem barabam fil kalaami ci wax maanaam bu fa kamaalaw kaanat comme bu nekkoon illa illaa xeeru mawjuda amut boo xoolee dañ ko bàyyi ca place ba nekk barabam mooy faayil la kon faayil dafa war a rafaa ñu rafaa ko na mafoolum bii a nasam ñu nasam ko lu xar fu jar dugg dafa war a jar ñu jar ko mustasna bi noonu mel ni bu illaa nekku fa foo moom mis fil misaal awale ci misaal bu njëkk bi marfu moom dañ ko rafa ala annoo ci ne moom faayilun mooy faayilun yusdi wa fil misaal saani ci misaal ñaari bi mansuub lañ ko nasab ala annoo ne moom mafuulun bi mooy mafuulun bi wa fil misaal saalis ci misaal ñetteel bi mabinun lañ ko jër bil bàyyi ci baa su ko defee bunt bi moom boo ko jàppee usdud yadayka alayhi teel sa ci bunt bu baax ndax daanaka noo ko jàngat langue arabe yëpp gis moom bañ na ko ba ci xaayda bi say su bi def na la boo topp ma langue arabe yi lii ma la wax rek nga ci gis hmm. kon daanaka moom mat na daf ci am yoo xam ne nii téere yi nga ko njëkk a ci lay matee téere bu magak bu ndaw yëpp la ñooy bokk dañ ci wax dañ ci wutee yu détails yu ndaw ndaw lay doon alxawaay li mooy tënk bi isa kaana bu nekk al mustasna minhu mazkuran di luñ mustasna minhu nag wax nañ ne moy la ñëw njëkk illaa wa kana mu nekk alkalaam wax bi musbatan di saxal dàqut wajam war na nasbul mustasna nasab lañ sété bi illa ci illaa da ko war nasab ben wax bobu la am iza kana bu nek al mustasna minhu mazkuran di luñ tuddu wa kana mu nek al kalam wax ji man fi di ji di luñ dàq man fi mo ismu mufal di luñ dàq jaaza daga na fi fil fi mustasna ci lañ sété bi illa ci illaa an yun saba nasab ko al istisna yi moo irab mustasna danaan mansuubun ala istisna dañ ko nasab ci seet wala bil istisna waan yet baag mu topp al mustasna minu mustasna mustasna minu bu fi i'raab bi ci i'raabam bu dee wax ji dafay dàq mustasna bi mm, mën nga ko nasab ci istisna wala mu topp mustasna minu bi ci i'raabam nekk badal idaa kaana bu nekk al mustasna minu mahzuufan diruñ xasaf kooku onxori ba dañuy i'raab al mustasna mustasna bala xasbi ma yaqtadi ci kem la dana ko waral mawdi mu barabam في التركيب تغربي كما لو كانت كم بنكون إلا إلا غير موجودة أمفة su fekkee tuddoo mustasna minu bi yow essayal nga dag illa rek bul xool nak mana bi bo dagge illa xoolal bat bi lu wara don budé fa'il bu dee ko budé maful nga nasab ko booree jar nga jar ko ma sahabtu illa al akhyara dagal illa muy ma sahabtu al akhyara contraire mana bi nga bi nga bi nga don wax nag ngay am mais ba legui maanaam taxul laa ji da nga bëgg a xool rek boo daggee illaa gi lu muy nekk boo boo xoolee da ngay gis ne ma xool nga am nga nasab ko noonu nga koy toppee ba jeex ko defee loolu mooy atte mustasna waaye bi illaa ci illaa rek amma leneen lu dul illaa danañ ci ñëw ci beneen dars incha allah rabbi moom moom li waxi boppam la yore in uridu al-islam mastata'tu ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh